waa DGE lànk ne kat duñu jox ay fiche de parrainage ki nga xam ne mooy mandataire bu candidat Ousmane Sonko ña koy layal ñoom dañoo daal di saisir commission électorale nationale autonome du Sénat ngir rek ñu mën a assurer li nga xam ne mooy respect ci règle électorale yi ba tax na ña koy layal ñoom ñu nga sukkandiku ci article L13 bu code électoral bi nga xam ne daal ne kat démarche bi lii mu fësal mooy mission moo daal di xool ñu fexe rek daal di appliquer loi électorale ak parti yi nga xam ne ñoo ci bokk bu dee tamit autorité wala politique wala candidat bu mu mënti doon wala électeur waaye bu fekkee ne loolee respecté wuñ ko ci ay règles yi nga xam ne mooy ak autorité administrative Sénat moom mën na daal di ordonné ñu jël ay mesures ngir daal di yaa indi ay coppite ci avocat yooyu kat ci la ñu sukkandiku ci électoral bi waaye tamit daal di wax ne ñoom la ñu bëgg daal mooy fexe ba fiche parrainage yi ñu mën ko jébal seen client ginnaaw doxaluñ ña nga xam ñoo leen Ousmane Sonko ay professeur agrégé ci wàllum droit ñoom ñoo jëbbal benn tontu waa DGE ku ci mel ni Abdou Aziz Diouf professeur titulaire agrégé de droit privé ak sciences criminelles El Hadj Sama Ndiaye di maître de conférence agrégé droit privé Sidi Alpha Ndiaye di maître de conférence agrégé droit public ak Babacar Niang di maître de conférence agrégé ci droit privé ak sciences criminelles nekk avocat ca barreau de Paris ñoom ñu ñaawlu doxalinu waa DGE ñoom professeur yi nee lii nag moom dafay firndeel kat état amul fii ci Sénégal Sénégal la ba tey ñu daal ci yokk nañ seenu bataaxal ne ci jamono ju nga xam ne ñu ngi waajal élection présidentielle ci février 2024 waa DG ñoom lu jig njaaga ñoo njàkk ndax dafa mel ni seen posture bi baaxul waaye tamit ci état bu parrainage bi ak doxalin bi ñoom ñu gis ne kat Thiendella Fall mi nga xam ne mën na ci bopp ba dafay daal di confisquer ay prérogatives yi nga xam ne waa conseil constitutionnel mooy instance bi nga xam ne moom rek moo war a xool ki nga xam ne moo nekk ku éligible wala war bokk ci élection yi